waaw jërë jëf mbokk yi ñu ngi toog ak euh, sunu xarit sunu am di jàmm koo xamante ni àdduna xam nan ko kenn dootu ko présenté muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy Serigne bi nuy naa jërëjëf sang bi ñu ngi lay delloo siyaar baax de am mbégte contentement ci sa teewaay fii te naan bismillahi rahmaani rahim laa xaw xawla wala quwwata illa billahi xalil asim rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli bokk yu baax yi yéen ñi nga xam ne waxtu wi tembe yéenay bàyyi xel Serigne Cissé officiel ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal waq waaye di leen baal waq di leen ñaanal yàlla tawfiq ak sutura rawatina waa diaspora bi rawatina fii ci réew mi di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sang bi sëñ Mbàkke. Serigne Cissé bu ndaloon naan laaj naan la kan mooy Serigne Cissé loo may wax. Serigne Cissé mooy jaamu yàlla boo xam ne borom bi dogal na dogal bi dogal ci moom muy liggéey ci ñaan yàlla. ñaan yàlla nag borom bi dama damay wax ne sama waajur wu góor xamoon na ne lool laa war a doon ba tur bi nga xam ne mooy sama tur dëgg boo ko tafsiroon firi ko mooy kii war a xettali kon sama baay xamoon na ne man bu ma dundee bokk naa ci ñi war a dimbale jàmm ñi koo koy xaw euh, sëriñ Cissé bu sëñ Babacar taxoon ma def ci kot ndax gars yi dañuy dañoo soxla turu jàmbur daal <laughs> waaw ñu nekk dëkk boo xamante ni polémique bi day bari werante bi day bari mhm. waaye moment bii ñuy wax nii ak yow mhm. ku ne xam ne ni làmb ju rëy rëy rëy dafa nekk ci suñu kanam mhm. di premier janvier diggante Modou Lo ak Boy Niang sëriñ Cissé lan moo ci taxawaay taxawaayam du lenn lu dul ñaanal yàlla moodu yàlla may ko ndam le premier janvier lu rek ci sunu taxawaay du leneen ñaanal ko yàlla la le premier janvier borom bi nga xam ne moo yor ndam di suturaal jàmm yàlla suturaal ko ci kaw booy ñaam loolu ci taxawaayu sëriñ si mu sëñ Babacar si te jaam yàlla yëpp xam nañ ko ne sama taxawaay ci combat bii mooy di ñaan ki nga xam ne moo yor ndam di ko joxe maa ngi ñaan borom bi subhaanahu le premier janvier mu Lo yàlla na ko yàlla may ndam jël bu kenn mosu gis ci réew mi ci kaw Boy Niang Boy ñaa yàlla na réer. soo doon ma defal pronostic làmb ji noo gisee. ni ma ko gisee daal ñaan yàlla nu ko bu ko muur de békk mu daanu na ko békk mu daanu bu koy dóor ipirkiñ mu daanu. na ko dóor mu daanu luy békki taxawul foofu luy békki. békk békk de mooy waggat ko rek mu sëpp mu mu xam nga léegoo léegi nit dagal si la di ñam. Mhm. nga rëcc wu dugal ko ci sa suuf. Mhm. mu mu daanu. Hmm. loolu loolu laay tafsiree békk. loolu ñun moom la ñu bëgg a fàqat. fàqat. wala suruxat. mu suruxal ko. Ah. xam nga arrière boo ko defee. Hmm. suruxal la. Hmm. bu la ci lu doyoon nga békk ko sa loxo yi mu daanu. loolu moom bu xamee neex na ma. ba ma ci doon gën a neex na mooy na ëmm seen magam daanoo woon mu daanoo ko mëq ci suuf si. man loolu laay ñaan yàlla yàlla na mëq ci suufi stade ba maa koy ñaan borom bi te yàlla na ma ko borom bi nangul pelente bi daal bind naa ko te déposé naa ko jox ko yàlla te di ñaan yàlla le premier janvier daal Modou loo yàlla na bég parcelle ak quatorze régions yi ci Sénégal wax naa leen ne nanu ma ñaanalal Moodu Saalum moom la ma lim ci dëkk yëpp dégg nañ ko nañ ma ñaanalal Moodu yàlla may ko ndam lu rëy rëy ci barke sëñ Babacar noo ci taxawee jour boobu da lay gis ci ginnaaw Moodu la wala da ngay ñëw daal toog fa nga toog di def li ngay def man li ma leen wax ni nit ñi di demee làmb ak ni ma fay demee bokk damay sañ sa ba rafet hmm. xabtaal laa diggoon sax waaye boo naax faa trois peesu jees neer laay def hmm. bu silvise yóbbu ko ñaanal ko yàlla hmm. dogaanal ko borom bi te di ko ñaan borom bi defal ko ko waaye sol yu jaxasoo moom du bokk ci yi may jénne man sëñ si mu sëñ Babacar. Mhm. Mhm. waaw ku la xam-xam ci sañse. waaw waaw si bëggul bopp bëgg boppam bëgg lu mhm. baax. mais sëñ si bu nu jàllee ci loolu dafa am loo xamante ni toujours dama koy gis ci képp kuy ñaan. mu bëggoon la wax sa diggante yow ak seet. ak listixaar. ndax fi nii moom dégg naa moom seetu loxo bi moom mi ngi toj réew mi. mooy dëgg seetu année bi. xoolal la. nga wax li li nga nar a am ci at mi ak fi nga war a jaar. Mm-hmm. loolu nag tungu du teew ñuy nataal loolu laa la bëgg laaj nu mu demee ak noo koy defee ak fan nga koy defee. jërëjëf sang bi sëñ Mbàkke nit ki balaa ngay xam ne dama bëgg a dem Touba day fekk nga xam yoonu Touba. dama bëgg a dem Tiwaawan wala Kébémer wala Kaolack day fekk nga xam yoon ba boo xamul yoon ba doo dem. Mm-hmm. nit ki it pour mu am faw mu xam ban yoon la war a jaar pour mu am. c'est très important. c'est très important kon la koy waral mooy ne il faut yow Serigne Cissé da nga bëgg a xam sa sarax ci année bi lan la. Mhm. fotol sa loxo ndeyjoor bii nga yónnee ma ko man Serigne Cissé mu sëñ Babacar. ci whatsapp. ci whatsapp. foto rek. foto rek ngay def sa loxo ndeyjoor bii yónnee ma ko. loo bëgg a xam ci sa bopp ak ban tabiha nga bokk. yow xawaay yu nga. wala naar yu nga wala trois bi wala maay yu nga wala sa bidiw nan la taxawee Serigne Cissé mu sëriñ Babacar si nan la. Hmm. kerek boo foto sa loxo droite bi yónnee ma ko loo bëgg xam ci sa bopp danga ko xam loo bëgg xam ci sa sarax danga ko bëgg a danga ko xam bu fekkee ne yow nit ku war a rey nga danañ la wax ne dangaa war a rey ndax léegoo léegi rey ñu digal ko ku ko wartu def hmm. léegoo léegi ñu digal nit na ko saraxel ndox te waru koo saraxe léegoo léeg ñu taxalloo nit sondel te wartu taal sondel léegoo léegi ñu génneloo nit ay sarax yoo xam ne waru koo def waaye sëriñ si sama sëriñ Babacar Si yow mi may seetaan hmm. bëgg a xam sa tabiha lan la fotol sa loxo droite bii yónnee ma ko loo bëgg xam ci sa bopp xam sa sarax ci année bi ak nan ngay def ba balaa bi nga xam ne day faral di xew ci ay at ak yooyu nga bëgg ci mucc sëriñ si dina fotal sa loxo ndey rek nga yónnee ma ko insha allah ndem soob na yàlla dinaa la wax loo xam ne daal bu soobee yàlla danga ci mën a teg sa bët bii te boo ko defee yàlla suturaal la insha allah. tey ku bëggoon jot seen Cissé. Mhm. ak lii nga wax ni fi ne ni dëkk bi ñëpp kenn ku nekk yow. Mhm. bëgg ngaa xam yow fan nga war a jaar. ak mhm. lan ngay def. ku bëggoon loolu nan ngay mën a def pour ba jot seen seen Cissé mu suñ baax. bu ko defee numéro bi nga xam ne mooy affiché si numéro boobu ngay wootee. Mhm. boo ci wootee Serigne Cissé ngay jot direct mu waxtaan ak yow ca la nga bëgg faj say aaju ci barkeeb Serigne Babacar Sy incha allah bu soobee yàlla. wax nga sànq ponk bu garaaw nag. ponk bu doy waar. Mhm. Mhm. da ngay gis nit kuy xëy. wala muy fanaanoo soow. suukar. yaa ma gën a xam comme ñun ay africain la. mais am na ñu koy def ndekete waruñu ko def. waruñu ko def nit ki dafa am loo xam ne lii sa sa sa rawxaan nangu ko. am loo xam ne sa rawxaan d'accordu ci loo xam ne kerek boo bëggoon a am naqar boo ko génnee naqar wa da lay dëddu kooko dafa xam saraxam am loo xam ne yaa ngi koy xëccoo ji xam sarax bi nga war a joxe boo ko demee yàlla defal na sutura loolu dafa am kon yow mi nga xam ne nag bëgg ngaa xam loola sëriñ Cissé ne bu la wax ji doy rek jëlal numéro bi nga woo ma incha allah boo ma wooyee léegi tey nga xam fi ngay teg sa tànk incha allah ndem soom na yàlla ñu wees woon année yoo xamante ni danoo jël coupe d'Afrique mhm. ci ngay dégg ay polémique yu bari. Mm-hmm. Serigne Cissé lu toll ni sa réew. Mm-hmm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na xubbul watani. yeneen mm-hmm. iman. Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy yan taxawaay lay waajal. lu jëm ci coupe d' bi. coupe d' Afrique bi daal liñ cey bëgg. mooy ñaanal ñi nga xam ne war na noo bàyyeekoo ci réew mii dem. lanuy sàkku ji yàllaa ko yombal yàlla yàlla yombalal leen ko. waaye ñu ngi ciy ñaan yàlla. waaye fi mu toll ba may mën a sori ci loolu dëgg-dëgg sëñ Mbàkke mm. lañ koy laltaxee nag mooy ñaan maa ngi koy dogaan borom bi mm. yoon wi yàlla na leer ci barkeb sëriñ Babacar Si mm. bu ma bayeekoo ci làmb ji nag duma ma suubu ci lenn loolu coupe d'Afrique bi moom daraje yonent bi jël nga engagement insha allah insha allah danaa ci ànd ak président Lat Diop ci coupe d'Afrique bii di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla mi am kàttan suturaal ko ba yàlla defal ko ci ngëneel mu indi ko fii ci réew mi ñu ko koy ñaanal waaye nag pour dëgg dëgg dëgg li ci war moom dëgg dëgg mënaguma koo wax ndax dama ne ci bis boo xam ne dafa ma ñor muy le premier janvier maa ngi dogaanat yàlla te li ma bëgg yàlla rek a ma ci doy keneen doyul ma ci ku ma ne doy na ma ci ku borom bi dawee nax sama bopp yàllaa ma ca doy te maa ngi ñaanaat yàlla di toroxlu ci buntam bi nekk jaam bu xeebu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala le premier janvier yàlla yaa yor ndam yaa koy joxe yaa ko mën a joxe te koo ko jox mu bég yàlla nga ñu ko jox ci daraja yonent bi barkeb Cheikhul Khalifa Serigne Babacar Sy waaqiru dahwaana xanil alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum jërë ngeen jëf